asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñi suivre ci Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar ak ah, fu ngeen mën a nekk rek béggee naa leen xam nga di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ak tamit suñu mbokk LB yi ah, parce que fekk nañ leen fii tey te yaale leen micro du mën a ñàkk tey nag ñu seet suñu benn grand boo xam ne olof ne na ah bi tax ak xati ay mbokk lañ ndax la ko waral mooy ñoo bokk bi yel parce que bu ñu nee Lamine Samba ci wàllum média defe naa ñun ñii ñëpp bu ñu ñëwee après daan nañ ko déglu xam nga di am lu muy def ci ñun ba yàlla def tey ñu fekk ko ci milieu bi mu nekkoo xam ne mën nañ ko tuddee royukaay ci ñun parce que yemul ci micro ba kese kat bool na ca jaay ay xar gis naa ko sa defe naa muy jaay ay jiin ak yu kenn xamul mu mel ne daal moom la Ismaïla loo woyoon ca bawal bawal ya moom daa xam ne moom loolu la jël di ko utiliser grand bi maa ngi lay bëgg di lay ziar. mais Babacar maa ngi lay delloo ziar xam nga yow damay kontaan ci yow chaque fois parce que li may wax moom ku yokkul yaa wàññi te métier bi ku ci nekk yokk xam nga ku ci nekk wàññi tamit xam nga mais damay laaj Leewtoo ak Lutte TV luñ bokk. Leewtoo ak Lutte TV maanaam xam nga Leewtoo balaa ngaa bëree da ngaa Leewtoo te boo bu maanaam bu Leewtoo amee ci la jàpp bëre ji di am kon boo ne Leewtoo ne lit maanaam ne Leewtoo ne bëree maanaam benn la ñoo bokk ndey ak baay Pape Thialis Faye ne fii Ibrahima Faye sa nekk fii lépp ba tey di fay bi rek. dëgg la fay moo kon fay Birame Penda Waagaan may nuyu may nuyu internet yëpp ñi nekk ci réew mi ñu nekk ci bitim réew di leen ziare kenn ku ci nekk ma lay jox sa wàccuwaay di wax bisimilahi rahmaani rahim. am na solo grand frère euh, lamin Samba balaa muy ñëw carrément sax ci Lamine Samba ak làmb jëg yooyu damay ñëw ci Lamine Samba ci boppam Lamine Samba ku ne xam na ne faas la juddoo yaa ngi dégg nekk doomu Fass mais Lamine Samba ci média la ku ñi xamee wala ñun bokk ci lañ ko xamee mu nekk ci média boole ko ak leneen ak leneen Lamine mën nañu dikkaatal ci boppam ci lu gàtt. wax sa bopp day jafe waaye day yomb. ci résumé ci ga wax nga ko léegi Fass laa juddoo Fass laa yaroo Fass laa màggee waaye parcelle laa fekk baax xam yooyu day am juddu yaru waaye fekk baax parcelle ma fekk fi sama magu papa bu mbokkal ndey ak baay ñu nekk fi moom sax moo ma xiir ci commerce ndax man bi ma doon ñëw fi antiquaire laa woon Kora kenn dàqu ma koo defar ci Sénégal ma koy doon defar mais ba ma doon ñëw fekk sama papa di jaay kenkaayeri léegi nag kenkaayeri bi lu ci bari man maa fa doon nekk xamee naa matériel plomberie xamee naa matériel électricité xamee naa matériel peintre xamee naa ciment xamee naa fer xamee naa yëpp ci foofu laa ko waaw lépp lu jëm ci quincaillerie wax nga ko lépp xamee naa ko ci moom nag ci foofu laa ma tàggatee ci euh, commerce ci foofu nag laa bëggee commerce xam ni commerce neex na jënd ak jaay neex na daal dama naa gis ni paa bi da ci daan am weccit quoi da ci daan am xaalis quoi léegi nag foofu la ma virus bi toppee ma continuer noonu bi kooraay demee ba doxatul après ma viré wu ci commerce bi mais rëccuwu ma ko tamit parce que loolu moo ma forgé tey ba lépp loo xamante ne nii tey wàllu jënd ak jaay la ci lu dagan damay jënd damay jaay. solo mais bu ma la laajee noo def ba ñëw rajo. Jo Maroon xam nga ko. bu RFM. waaw maa ngi koy déglu bu baax Jo Maroon. Euh, président commission culturelle ASC Doole. man man ci mouvement nawetaan laa génne ci gàttal euh, xale bi tey di euh, xaadim yaayam sama troupe la nekkoon doon fecc te maak yaayam ñoo bokk ndey ak baay ma yoroon section culturelle benn ASC bu ñuy wax ASC doole ASC doole moom amul ku ko déggul euh, ci culture jël naa cinq fois zonal jël naa trois fois départemental jël naa deux fois régional représenté naa toute la région de Dakar si phase nationale yi doon am Ziguinchor ci boobu temps deuxième la ñu jëloon benn exemple rek laa lay jox Pape Moussa mii di fecceel Youssou Ndour man maa ko njëkk ne nii la ak nii la ak nii la nii la ñuy feccee nii la ñuy waxee nii la ñuy taxawee ci kaw seen bi loolu lépp amee papaam Buli Sonko ma koy ñaanal yàlla ko yàlla yàggal ko fi ak yaayam Oumy Sène xam nga Oumy seen damay dégg tour bi. moom lu Youssou Ndour di waaw Mbaye Gueye Faye di wax Miss Karaté. Miss waaw ca wa. waaw ndax da daan publicité magique moo jur Pape Sonko mii dañ ma doon wax ni comme ñoom seen famille yëpp dañ ci fekk ay euh, Miccu Sonko ñëpp xam na ko mi daan ànd ak euh, Fatou génn àdduna ay Ndey Fatou ay ñoom Awa Sonko ñoo ñëpp dañ daan fecc mais Sorano lañ nekkoon mais man dama dama daan daan dama leen daan jël di leen loon nawetaan bi ma ñëwee Pa Sonko ne ma Pa Moussa daal dama préféré mu jàng préféré wu ma mu fecc mais comme pa bi daf ma bëggoon mujj bàyyi Pa Moussa muy fecc mu dem ñu dem Ziguinchor ñu tab ko mu nekk meilleur danseur du Sénégal Pa Moussa sama loxo yi laa ko formé xanaa jommi nga <laughs> ku la waxoon ne xàmmee naa mbataas ah gorongu talmbat gorongu mbabas cool tungu ne ku def contre temps ma ma ku way contre temps ma xam ko ku fecc contre temps ma xam ko ku duggee ton contre temps ma xam ko man metteur en scène la loolu mosoo ko xam ci man. non jamais au grand ah. soo ma joxee thème léegi ma développé la ko ci boobu jamono nawetaan dañu ñu joxoon jeunesse éducation et développement. ma génnee woon ci benn poème boo xamante ne nii si kanam tuuti dinaa la ko may ci éducation waaw. am na solo loolu dina am solo trop lii moo tax nit ki boo ko séenee muy dem rek te xamoo ko dee ko wooyee ee eh rek moo gën a wóor. xam nga lan laa fa waxoon gars yi dañ ñu génne woon nañu ci jeunesse éducation ak développement da ci war a génne pièce théâtrale da nga ci war a génne woy da ci war a génne fecc man ci biir poème bi ma ne ndawi réew. ndawi réew mënuñoo ñàkk jom te duñu ñàkk jom ba mu toll ni bën bëndu puso ndax ci juróom-ñeenti weer bu ci juróom-ñeenti fan ñun suñu bakkan xajoon na ci man yërëm naa kii di xeelu yaayam man yërëm naa kii di tàngal xolu baayam waaye ñun ñii di ASC e doole kenn du ci tàngal sa xolu waajur ndax nga jur sa doom jàpp sànni nga jur sa doom rey wacc bu la yàlla jàppee daal di lay mbugal guro gi bu la nguur gi jàppee daal di fànq sa giiru dund sàcc ndënd yomb na waaye fañ koy tëggee moo jafe ma dellu siwaat ci beneen côté ma ne l'éducation est le plus sûr garant du bonheur de l'enfant et de sa formation complète s'il est vrai que les parents aussi bien que les enfants doivent s'acquitter de leurs devoirs la tache de cela dépasse la satisfaction des besoins animaux et devient un impératif catégorique l'enfant ne cesse t de le dire est un don que Dieu nous ait confié Il est notre parure et sa valeur se mesure à l'action éducative dans le rapport de soi, à la société des hommes, mais à Dieu aussi. La progéniture est un don, un bien de Dieu qu'il faut guider à l'image d'un berger devant son troupeau, car l'enfant est comme un miroir dans lequel s'inscrivent les scènes de la vie quotidienne. Livré à lui-même, il sera comme un champ où se développe de la mauvaise herbe. Cependant, une bonne éducation lui évitera de jeter la preuve dans sa famille. Dieu nous l'a dit dans le Coran. Protégez-vous et protégez surtout votre progéniture contre le feu, aussi bien le feu d'ici que l'au-delà. xanaa jommi nga. waaye grand grand grand grand guddalu fan te wér waaye ah macha allah loolu moom duñ ci duñ duñ ci teg dara quoi dañuy continuer rek yow parce que lii ma dégg nii moom tey wala li gars yi dégg defe naa tey lañ koy doog a mën a tey lañ koy doog a dégg mais léegi nag damay ñëw tout droit ci xar yi parce que lamb ji laay mujjee Lamine Samba. dañu ko xam xam par rapport ak ci rajo beeg yooyu ak télé bi tey ñu ñëw gis la ak ay xar xam nga kañ nga commencé dugg ci wàllum bergerie maanaam yar ay xar ak jaay. man du ma éleveur opération tabaski laay def mais dem naa nag ba am passion bi am ay quelques rares xar yoo xamante ne ni maa ngi leen denc ci béréb passion boobu nag moom moo ma indil loolu comme li ma la doon wax ci début bi rek commerce bi moo indi loolu événement bu nekk rek day day tombé man mu dugg ci. am naa place boo xamante ni nii dañ fay ñawee am naa place boo xamante ni dañ fay jaay yére lu ma sol maa koy jaay xam nga euh, suñ borom moo maanaam milliards yi ñëw ñëwagul rek mais maa ma ma waaw ma saa yu ma xëyee rek maa ngi koy waaw maa ngi koy maa koy maa ngi ngi koy lijjanti. waaw kon daal ndeketewul bawol bawol rek ko mën a lijjanti am na. <laughs> koy ma non man dama koy lijjanti parce que nga baal ma damaa bëgg xaalis te journalisme mayewul xaalis. xasuma journaliste yi de nay leer parce que si laa nekk te du ma ci jóge li ma bëgg ci xaalis mënu ma koo am ci journalisme moo tax ma commerce am na solo loolu leçon la si ñun ñëpp kon na ko ku ne bàyyi xel léegi xar yi moom est-ce que liggéeyu xar yi yomb na nii ak opération tabaski ngay def des fois di nga def benn perte wala di nga def benn gagné. ak aka moo metti ci nelaw ngeen ma yeewee léegi dafa metti ma boole ko télé bi di ma bëgg. xëcc côté bële rajo bi xëcc ma côté bële su ma bëggee lundi mardi mercredi jeudi vendredi may def revue de presse ci télé bi samedi dimanche may def ci rajo bi kañ laay am repos su ma ko boolee xar yi foo jaar ma nelaw parce que yaram boo ko noppalul mu noppal boppam ok mais dama la bëgg expliquer ne la euh, lépp looy def rek ko bëgg loo bëggul doo ci réussir lépp looy def na ko bëgg ak mu mën a doon ci àdduna boo ko bëggul doo ko réussir man nag bëgg naa sama métier waaye bëgg naa tamit duma tàllal kenn loxo bokkul nag ak ku ma may du ma jël de. waaw ah, xam nga Sénégal dañ naan ah moo ne de du tàllal loxo te ku ko may du jël amul fenn fu yàlla di jaaralee mbir mi directement ci kaw asamaan fi di ko jàll foo jaar mu jaare ko ci ci ci ci loxo nit. loolu la ma bëgg commerce bëgg def loo xamante ni nii xaw ma naka lañ koy tuddee. chaque fois fii bu ma fi toogee Babacar naa fi maye dinaa fi jaay naa fi leble par force Babacar lii dinaa ci jaay dinaa ci leble dinaa ci maye lenn dong ngay am mooy xaalis bu daje mais xar mënoo cee am bénéfice parce que tey boo jëndee xar ñu korité ba pare nga jënd xar cent trente cinq mille boo ko jaayee deux millions perte nga coono bi ngay daj ci xar bi li ñuy lekk li ñuy naan vétérinaire bi ngi leen di wutal ainsi de suite te man samay xar dama ciy def ay moyens duma jaay xaru coggal xasuma xasuma ñiy jaay coggal du ma jaay xaru coggal du jaay xar mu bon xar du ma jaay xar mu màggetam xar mu ma la jaay rek xar mu baax la te xo yërndul rek nga xool xar yi li ñuy lekk nga xool composition bi chaque jour ñu ngi nii je dépense trente cinq mille francs pour xar yi li ñu lekk juróom ñaari junni ci xale yu lu ñuy lekk chaque jour fan ngay jëlee bénéfice chaque dix jours trente cinq mille francs maa ngi lal bu tabaski jotee incha allahu rabi damay am un mois un mois du trente jours léegi multiplier li ma la wax trois cent cinquante mille francs trois fois trois cinquante mille ci li ñuy lekk rek. un million cinquante xoolal ñi fi nekk ñëpp kenn defu fi gratuite. tàmbali kook sama jarbaat bii newu ma ndijaay da nga may fay de newu ma ndijaay da nga fay de mais est-ce que dina fi liggéey ba pare mën a ko demal xool. xel nanguwu ko dama lay laaj. ñii fi nekk ñi ñëpp dama leen di fay. tout le monde ñëpp dama lay kon kat au moins minimum que ce soit contribuer naa ci développement réew mi ci lu mu gën a tuuti tuuti parce que am na ay ndaw yoo xam ne heure bi waroon nañu def leen canaliser naa leen teg leen xaalis bu daje ngay amee noo ci am xaalis waaye yow Babacar dama la jox exemple. yaag Lamine bu ngeen ñëwoon fële euh, jël ma hors antenne ne ma grand ñun def fi ñu toll nii maire bi moo amagul xar quoi léegi grand cinquante mille a ngi nii doo ñu jugal doo ñu wutal xar dama lay wax déedéet noonu nañ wax dëgg. ah non man man tane mu ngi noonu boo affiché woo rek. parce que ba mooy tax. mu ngi noonu. waaw yaakaar ji day tur. waay Lamine Samb jeexalu dara. waaw fekk li yàlla xam doy na jeexaluñu dara parce que doylu nañu. te sag baa ngi fi yàlla na ko yàlla gën a saxal. waaw ba tey bu ñu continuer léegi loolu leeral nga ko dañuy ñëw nag ci côté làmb ji wala tamit sa sa fi ngay liggéey parce que xam nañ ne foofu làmb yaa ko fa yore yaa ngi dégg muy groupe Futurs Médias tey ñu xëy a xëy gisaat la ci beneen facette boo xam ne sax xëy na ñi la xamuloon mais ñun yàgg nañ la dégg ngay présenter journal di def revue de presse la moo tax gars yi xëyaat rek indiwaat la ci journal bi indiwaat la ci revue de presse bi. làmb ji dafa naroon a dee de <laughs> làmb ji làmb ji dafa suur de. daa faatu fii ci réew mi wala biir Futurs Médias ah réew mi moom xawoon na fee sonn moom. ak mbas mi ñëw ah, mbas mi waaw. léegi man est-ce que dinaa nangu Youssou Ndour di ma fay te du ma ko amal njëriñ. loolu da xel nangu. non du ma ko nangu du ma ko nangu moo tax proposé wu ma leen je ne suis pas demandeur mais ñoom ñoo xam ni biñ may jëlee Walfadjri journaliste la ñu recruter ñu indi ma delluwaat ma ci rédaction yi est-ce que comprendre parce que kon sinon du ma leen amal njëriñ parce que am na benn moment boo xam ne Futurs Médias lamb rek laa doon def. parce que instant boobu lamb saturé na fu nekk lañ doon dem man ak yéen Kaolack Thiès Fatick Ziguinchor fu nekk doonoo am temps pour dugg ci rédaction yi mais bu lamb fii laa koy waxee bu affaire yi jaxaatee lamb ji ñëw damay delluwaat ci lamb ji de. déedéet bori mënta ànd ak ma ci lem. doo ci génn sax. Ah. kon loolu am na solo leeral bi mais groupe Futurs Médias boobu gis nañ leen ak GFM Entertainment ci Balla Gaye Eumeu seen ñu def ko benn yoon ñaareeluñ ko ñu xëyaat gisaat leen tey ci Reug Reug ak ki nga xam ne moo di guy gi lan moo waral bu ngeen defoon ko toogaat at yu bari door koo dolliwaat dafa neexul woon wala lu xew tey. xam nga souvent Sénégal li koy yàq mooy dañ koy laaj loo xam ne du domaine am mu tontu si Sénégal Entertainment Group Maaw Cissé mooy coordonnateur bi même li nga may laaj ne bu ma ci xamoon sax du ma ci wax nga baal ma quoi Lamine euh, Lamine mii xam na ci dara et souvent loolu mooy yàq Sénégal dañ lay laaj loo xamante ne yow du sa domaine. même xamuloo ko sax nga bëgg a caa wax léegi nag soo demoon ci Maawo Cissé moom dina la expliquer lépp man daal li ma ci xam mooy woo nañ ma ma ñëw ñu ne ma ñu ngi taxawal rëg-rëg signé nañ ak moom ñëwal nga présenté ko bi ma ñëwee maa ngi fekk ñoom Lamine maa ngi fekk a journaliste yëpp te dama présenté maak ñoom ñoo demandoo ñu taal seen oto dem ma taal sama oto dem négociation même lu ma ci xamoon sax duma ko wax fii parce que su ma ko waxee maa ngi empiété wu ci loo xamante ni nii nekkul sama responsabilité. kon foofa duñ ko jéggi dañuy continuer waaye leen rek bëggoon naa ko ci cof mooy que ni tey combat bi ñuy déclaré ba Sénégal yëpp di ci wax muy Reug Reug ak Gouye Gui yow boobu ko gisee en tant que Lamine Samba buy xool làmb neex na de neex na de xam nga daa am bon am trop bon. signature Gouye Gui ak Reug Reug signature ba rek <laughs> non Gouye Gui al waxaala xanaa xamoo gars yi naan. Euh, nu mu tudd Reug du wax par force dina wax contre guy gi yow guy gi ku fi mbër moomu fi bëree rek waxloo na la moom mi waxloo Ama Baldé ba ñu xeex ci kaw plateau yow xoolal loolu énervé nees énervé euh, guy euh, nu tudd zos énervé boy ñaa barki yàlla dina wax. dina wax force. non day wax force bu yeboo dem jàngi ko. par force day wax yow moom dem jàngi ko bu baax a baax a baax a baax a baax xam ne guy gi day signature day bàkku day bëre waaw. mais combat mën nañ na taxaw na saye après Lamine tontu la. kon ñu ñu ñu. daal li taxoon mu bañ a juboo ak waa ji bariwul waaye tey xam nga tey la jongante di commencé incha allahu rabi waaw léegi nag les dama koy denc exclusive pour sa bopp waaw woo woo waa ji Skype mu xam nga. mu leeral mu leeral ah. am na solo léegi nag euh, bu ma ñëwaatee tey tamit ci làmb ji fan yii gis nañu làmb ji comme ni nga ko waxee dafa xawoon a wàcc mais dafa mel ni yow ba ma ko doon analyser en tant que connaisseur parce que xam nga ñaari mbir yi bu baax a baax xam nga Gouye Gui xam nga Reug Reug te xam nga làmb ñoom ñaar ñoom ñaar analyse ci naka parce que dafa am ñoom damay dégg ñu naan non Gouye a jël Reug Reug parce que Reug moo dàq bëree parce que mbapat lay bëree ñi ne Reug manta daan guy gi parce que guy gi mbër mu dëgër la yow xam nga pataas moom a gënal pombiteer kuñ ci yóbbu tribunal boo amee avocat bu baax doo fanaan mais man d' accordu ma ni euh, rëg-rëg mooy favori je ne suis pas d' accord li li guy gi def ci lutte avec frappe rëg-rëg defagul genn wàll gi kaa la ñu waxante dëgg te yàlla rek a tax ñi guy gi bëreel ci làmb rëg-rëg bëriwul ak ñoom ci làmb ah man de xaw ma maa juum xaw ma juum ma cinq combat am de laa gis lutte avec frappe ñu ngi naan treize ah man de gisuma treize man lamin gindi ma. waaw non def na ko sax. treize. def na waaw fii ci fii fii fii Ndakaaru fii. lutte xëy na non waa xëy na combat yi li nga wax mbër yi xëy na ñoo tolloowul niveau comme mbër yi mu bëreel ak mbër yi rëg comptabiliser ay mbër yoo xamante ne nii xam nga tey boo xoolee ba ci palmarèsu Balla Gaye ba ci palmarèsu Modou Lo ba ci palmarèsu am na ci mbër yoo xamante nii wóor na yàlla boo leen waxee Sénégalais yi xamuñu leen. waaw non loolu am na moom. ñàkk non critiqué benn mbër mais dama ne sénégalais yi xamuñu leen mais man Reug Reug maa ngi commencé comptabiliser ay combat am Elton Gris 2 waxal tur bi ah. bëri na ak Balla Gaye junior. Balla Gaye junior ak kan. ak ak Jordan waaw. Jordan ak kan ak ak. ak cinq combat yooyu laa jàpp ni ñooñu non man man laa jàpp ni c'est le dugg ci lutte avec frappe. ndax bi muy dugg ci lutte euh, avec frappe bàyyiwul woon completement lutte simple bi da daan sàccantu bu cofee ñëw bëre benn combat delluwaat gañ sa moon mais bi mu stabilisé euh, bi mu cinq combats la bëre ci arène bi guy gi comptabiliser kan la bëree ci làmb ci bëri na ay grand combat de moom yu mag a mag bés bés ay bés yu mag la am ay bés yu mag la am man bu dee favori man guy gi mooy sama favori. loolu leer na guy gi mooy favori am léegi lamb ji ñu doon wax dafay dee mu ngi xam nga ne ci ay jafe-jafe yow sa wax nga ko léegi ñu xëy gisaat ku mel ne suñu papa Gaston Mbengue ñu koy nuyuwaat en passage mu dellu siwaat ak yeneen nit dellu siwaat ay Vox Arena ak ñeneen ak tamit ñi fi nekkoon ñoom pa Abdou Fall léegi Nicolas donte mu ngi ci ndog-ndog affaire yi min dafa commencé waat jax mais est-ce que xel war naa mën a nangu bu ñu goree xel warut mën a nangu état dem trent 32 milliards dugal ko ci arène nationale ñuy bàyyi lamb ji di suux. waaw normalement. xel moor ko nangu moo tax gars yi ñu jógee woon doonu dañuy wan état bi ne ko ah li ñu defal nañ la ko delloo. état bi aussi tam warta seetaan dugal trent 32 milliards ci lamb di bàyyi lamb di de ñu naan er, arène bi baaxul ak waaye arène bi liiwul ak gis nga tàmm mooy laago tàmmoon nañ stade Iba Mar Diop tàmmoon nañ Demba Diop tàmmoon Léopold Sédar Senghor mooy lool mais comme léegi fermé nañ ko rab xoolal. bëgg bëre bañ bëre fii la ñuy ñëw force doole mbaam. retour Gaston beeg noo ko gisee. ah papa xam lu tax affaire du doonul événement Gaston moo tàmbu bis yu rëy est-ce que comprendre gis nga tey bu ko Lamine tëggoon mbaa ma tëgg ko combat yooyu dañ naan la ilaha illallah waaye événement bi événement bi mais dafa tàmm combat yu mag moo tax buzz bi mu waroon sax am sax amu ko parce que Gaston c'est Gaston Mbengue xam na li muy def nag de. xam na li muy def. combat bu ñëpp doon xaar tamit combat royal Modou Lo Ama Baldé yàlla indi ndog ci promoteur bi Luc Nicolaï Luc moomu loo koy adressé ak ñaari mbër yi. man de too ma maye dama bëgg lancer à travers Leewtoo production wala Leewtoo TV ma lancer message président de la République ma lancer euh, euh, euh, message ministre de sports. mu doon suñu au auprès du président de la république que ngir yàlla ak yonent bi ñu baal Serigne Fallou li ñu ko kenn la mooy le chef suprême des armées mooy président Macky Sall lu mu gàtt gàtt gàtt wax naa ko waxaat naa ko Luc Nicolaï am na lu mu contribuer ci développement réew mi lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt njuumte du wees waaye yaa xayte bu fekkee ni baayam boobu ñuy wax Bertrand Tulli moom moo téye bagage yi ba tey nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ñu woo ñu woo Bertrand Tulli ñu def médiation mu dem retirer plainte ba topp ko xanaa xamoo bu fekkoon xaalis la tey ñun ñii ñu dajale xaalis dem yóbbu fa. bu fekkoon ay yat moo ko fay génnee ay yat ñun de jaral nañ ñu jël ay yat mais nag nous sommes dans un pays de droit ñu ngi incliné wuñu sukk raam di ñaan président de la république le gardien de la constitution le chef suprême des armées mu jégal Luc Nicolaï na ko jéggal mais dégg nañ le ministre le de la justice mu ne mbirum dafa mel ni maanaam liñ koy toppee xaalis la bu ko joxee génn dem yoon. waaw mais xaalis boobu kaay leen ñu jóg ñu def def ci médiation doomu nda doomu ndey ah diine ji de bi ñu leen laalee barki démb ñoom jóg nañu aada ji de bu ñu leen laalee barki démb ñoom jóg nañu cosaan si de bu ñu leen laalee barki démb ñoom jóg nañu ah bii nag ñun lañ laal nañ leen jóg. na waa laa mujj jóg. waaw ah, nañ leen jóg ñun ñëpp nañ leen jóg. kon nañu jóg. ah ñun ñëpp nañ leen jóg nañ leen jóg. xool problème bi lan la doom ji nu mu tuddati. Euh, wili wini na ñëw jege ñu ñu waxtaan ak ñun ñu xool nan la ñuy def ñëpp